fas yéene jàngat tuuti ci làmb ñu wax ci suñu xalaat ngeen wax ci seen xalaat yéen it ndax saa su nekk dañuy gis xew-xewu làmb ay mbir génn ay mbir xew ku ci nekk am ci jàngat ba war a def tey nag jàngat bi ñu leen di jëlal ñu ngi ko jëlee ci journal suñu làmb mu nekk mbir moo xam ne taxaw seetlu jar na ko jar na ci jar na ñu taxaw seetlu ci gis nañ Luc Nicolaï mi nga xam ne moom moo doon démarché diggante Modou ak Ama balde sël bu ndaw affaire yi taggatémbe lan moo ko tax a taggatémbe ñu ngi wax problème mu cachet dégg nañ ci journaux yi ñu bind Ama Baldé proposé nañ ko quatre-vingts millions mu bañ Luc Nicolaï proposé na cent cinquante millions kii di Modou Lo bañ d'accord ci ay kàddu donc foofu lan moo waral l'attaque waa kër Ama Balde ñu ngi laaj fu Luc Nicolaï nekk waa kër Tapha aussi ñu ngi laaj fu Luc Nicolaï nekk waa kër Modou aussi ñu ngi laaj fu Luc Nicolaï nekk maanaam laaj boobu ci biir i wax ngay xame ne ñu ngi laaj promoteur bi fan la toll buñ ko dooree ak tafaatin tey tafaatin Tine bi Luc Nicolaï di waxtaan ak Modou ak Ama Balde combat bi tëw a sotti gis nañ mu jël tafaatin def ko plan B journaux yëpp wax ci waxtaan ak tafaatin ba ñu déggoo ci ay kàddu donc li ñu jàppoon mooy combat tafaatin ak Modou xëy na dana taxaw puisque promoteur bi waxtaan na ak waa kër Modou waxtaan na ak waa kër tafaatin ñu dégg aussi promoteur bi di waxtaanaat ci diggante Ama Balde ak Modou Lo continuer foofu waxtaan ya proposé kase quatre-vingts millions waa kër Ama Balde selon les journaux yi bind proposé waa kër Modou Lo cent cinquante millions donc foofu ñu ne combat bi ci waa pikin lay tagga témbee léegi nag plan B bi ñoom noppi nañ Tapha Tine pare na ak waa këram waa kër Ama Baldé aussi depuis que promoteur bi proposé quatre-vingts millions yooyu ci ginnaaw gi déggaatunu Luc Nicolaï parce que gis nañ ñu def ñenn ci ñoom def ay sorti wax ne depuis lors déggaatuñu promoteur bi am na ci ay journaux yoo xam ne nii sax mën nañ ne bind nañ ko lu ci mel ni recordu tay bi lan la wax mooy ligue tarde à lui proposer di concret donc mbir mi dëgëragut foofu amagut lenn lu dëgër loo xam ne ligue def na ko ci waa Pikine pour ñu mën a jàpp ne seen combat ak Modou taxaw na. Ama s'ouvre aux autres promoteurs loolu la record wax maanaam Ama noppi na ngir ubbil ay buntoom képp kuy promoteur ci làmb donc est-ce que ligue dafa daw génn wala déet kenn xamut. Ligue dafa téye Ama Baldé foofu jàpp ko otage wala déet kenn xamut donc waa Pikine li ñuy laaj mooy fan la Luc Nicolaï nekk ak fan la toll ci dossier Ama Baldé bi Tapha Tine ci jëmm boppam moom moo génnal boppam Tapha moo génnal boppam ci benn entretien boo xam ne nii mu ngi ko doon seq ak waa sunu làmb li mu xam xamle mooy Luc Nicolaï am na ci ay wax yoo xam ne nii waxi responsable la waxtaan ak mbër ba jubóog moom wala ngeen waxtaan ba tënk ci ay kàddu donc loolu waxi responsable la mais li mu def nii gisuñu ko dégguñu ko moom am na lu xelam jàpp moom en tant que tafatin moo xamle loolu te bu ñu fàtte ne démboo njaay kenn ci seen waa camp génnaan na waxaat na la même chose ni lii lig ni ko laay def ci manque de respect la bokk donc waa kër tafaa ñu ngi laaj fu lig nekk waa kër amaa Balde aussi ñu ngi laajte fan la lig nekk mais beneen xew-xew bi mooy Modou xarañ loo mi nga xam ne moom moo yor cëggal mooy xool ku ko neex mu bëreek moom Modou moomu tey moom aussi dégg nañ d'après bi ñu defee seen réunion technique bi ba pare ñu ne ñoom bàyyiwuñ fi benn mbër pare nañ pour bépp mbër boo xam ne ni làmb boole nag boole na leen ak moom képp koo xam ne amateurs yi jàpp nañ ne war naa mën a bëreeg le ñoom pare nañu pour jàkkaarloo ak moom donc ñoom it boo déggee ci seen biir yi wax ñu génn démb wax ne pare nañ pour tase ak tey ñu génnaat newaat pare nañ pour taxe tase ak Ama Balde boog loolu ça montre que ñoom aussi am na lu tagga témbe ci seen côté léegi nag jàngat bi lan la mooy ligue lan lay mijoté ligue Nicolas lan lay lijjanti fan la ne ci lan la nekk donc loolu moom mooy point yi nga xam ne nii tey moom moo soxal waa kër Ama Balde moo soxal waa kër Tapha waaye moo soxal waa kër Modou ndax bëgg nañ nag mbir mi leer ñu xam amateurs yi xam diggante Modou Lo ñooy bëre wala déet diggante Ama Balde wala moo ak Modou Lo ñooy bëre wala déet donc loolu war na mën a leer te lii ngay gis nii am na ay risques yu ci nekk nag risques yi mooy ki jiitu ci risques yi mooy Ama Balde parce que wax nañ ko fi combat ak Tapha Tine ba Abdou Fall dox ci wax ci ba presque ñu juboo woon ci ay kàddu finalisation combat ba moo taxoon mbir ma ewee ci waa Pikine kon loolu bu Ama Baldé aussi di prétendre am beneen combat digganteem ak le roi des ñu dem ba toll ci stade bi combat ba am lenn lu cay ñuul wala mu taggatémbe bu boobaa aussi Ama day courir ay risques yu rëy parce que ñaari combat yu avorté ci benn saison ci ouverture de saison wóorut ndax mbër mi dana continuer di prétendre pour mën a am combat am déet certes lutteur la fii ba saison bi des deux jours mu ngi ci am yaakaar ne dana am combat mais loolu ay risque la ci moom ñaari adversaire yoo xam ne proposé nañ la ko mu passé à côté Tapha Tine aussi mën naa ne risque la ci moom ci benn côté parce que combat am ak Ama Baldé mu ngi ko commencé woon di waaj moom wax na ne sax combat bi bi ma déggee ne yàqu na yàqoon na ci Ama Baldé ay ree la ma def donc loolu mooy wane ne bett na ko parce que jàppoon na ne am na combat digganteem ak Ama kon moom it bu dee combat am yàqu na muy xaar roi des arènes boo xam ne nii plan B lañ ko def est-ce que est-ce que dina jaadu wala Tapha dafa war a xaar mooduloo Lo wala déet donc kook it day mujjee naan. man maa ngi fi pour bépp lutteur maa ngi fi pour bépp promoteur donc roi des arènes mën naa ne moom moo ciy gagné parce que moom tey mënta semé saison bi lu mu yàgg yàgg yàgg dana ci bëre xanaa mu neex ko mu bañ a bëre mais tey bu bëggoon a bëre tey tey tey mu bëre tey tey tey donc man li ma jàpp mooy ñaari mbër yi ñoom ñooy semé ci côté boobu ñoom ñooy perte ci côté boobu mais le roi amul dara lu muy perte donc ñuy xaar le promoteur Luc Nicolaï mu édifier ñu édifier ak lu ñu xam fan la tafaatin Tine toll fan la dossier Ama Baldé toll waaye fan la dossier Modou aussi toll ñu jeexale ko ak lutte sans frappe gis nañ fan yu néew le géant bu mbuur bu ma nee la géant xel yëpp dañuy dem ci tafaatin mais aussi mën naa ne borom mbuur montagne c'est un géant muy pakala moom mën nañ ne euh, mag la mais du mag ci bëre du mag ci bëre bu ñu ko waxee mooy màggetut mbër la moo xam ne ba léegi mu ngi wane boppam mu ngi wane li mu mëne mu ngi wane li nga xam ne moo nekk ci moom. Pakala bu ñu ko waxee en 2008 xam nañ ko équipe national bëre na fa deux ans yoo xam ne nii benn défaite moom la fa am nekk na sampion champion Ndefleng nekk sampion Sénégal donc kooku mbër la bu kenn dootul présenté ci lit avec frappe aussi mu def ci ay liggéey yu ama am solo. ba léegi muy continuer di wane boppam di wane état de forme bi mu amee ñu gis ko keroog ci Adrien Senghor mu liggéey fa liggéey bu am solo mais ñu gis ko aussi bërki Demba Ndiaye ci terrain gaal gi nga xam ne nii bëre na ak Ngel John éliminé ko finalu ak ki nga xam ne mooy Serigne Ndiaye 2 Serigne Ndiaye door koo daan te ca Adrien Senghor moo jël final ba éliminé ko ci mel ni général Malika ah ay mbër yooyu nga xamante ne ni tey ci làmb ci làmb lutte sans frappe dañ leen di tudd euh, éliminé aussi euh, ku ci mel ni mussa Ndiaye éliminé aussi ku ci mel ni Mbaytin 2 donc ay mbër la yoo xamante ne nii ci lutte sans frappe xam nañ leen ay luur lañu ci donc gene euh, mën naa ne paka la mu ngi ci liggéey bu am solo boo xam ne fi la ñuy xaar yeneen mbër yi parce que ni ma koy waxee làmb ji nii lutte sans frappe bi championnat la championnat de lutte la boo xam ne mbër mi dina ci amee xam-xam dina ci amee doole dina ci amee compétition mais dina ci amee weccet mën a préparer boppam booy jël combat ci lutte avec frappe day fekk nga nekk ci rythme day fekk sa yaram day fekk lu ci bëree bëree bëree bëree bëri ci wàllu contact nga am ko donc dafa am benn plus boo xam ne nii di nga ko am di nga ko jiitoo yeneen mbëri kon yenn mbëri nañu daw dem dem ci lutte sans frappe bi fas yéene faa reyante ndax Serigne Ndiaye nga fa moom it liggéey bu am solo ah, mu commencé keroog jax bi fële ci adresse Senghor moom moo ko jël terrain gaal gi jax bi aussi moo ko jël mën nañ ne jax jig na ko donc général Malika aussi mu ngi ñëw gis nañ sax moom la ñu nommé meilleur mooy trophée bi nga xam ne waa ANPS sunu mbokki journalistes yi nga xam ne mooy agence nationale pour la presse sportive ñu ngi koy def tey rek lañ desoon décerné li nga xam ne mooy trophée bi jox ko général Malika muy lit meilleur lutteur sans frappe donc mention spéciale kook it mbërëntaal ci wàllu làmb mbër yi kon saison baa ngi noonu ubbi na am na yeneen i journée yoo xam ne ñu ngi fi lendemain euh, lendemain gàmmu euh, journée bu am solo dina am foofee ci adresse Senghor kan moom moo koy organiser ñu ne gala la boo xamante ne nii euh, le promoteur euh, ban promoteur la góor góor production ak goor production ñoom ñoo organiser gala bu mag boobu trois cinq cent mille francs la ñu fa teg seize heures lay démarrer donc foofu am nañ fa duo de choc boo xam ne diggante Mbaye ak Loum lay doon ak Babou Faye donc mbokk yi mbokki amateuru làmb yi mbokki mbër yi rawatina lutteurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci lute sans frappe bi làmb jàngook saison bàngoog ñu nit lii mooy premier numéro bi nii la ñu fas yéenee ànd ak yéen di def ay jàngat ci li nga xam ne moom mooy xew-xewu làmb li ci gën a fës di ci ànd ak sama doomu ndey jili bàyyi jili léegi rek mu rejoindre ma maag moom ñu ciy ànd di ci waxtaan di jàngat di jukki li nga xam ne moo ne ci journaux yi li nga xam ne moom mooy xew-xewu làmb li ci gën a fës jërë ngeen jëf mbokk yi teg leen seen baaraam foofu ñu nag yéen la waa wasaare ak yéen la dénk leen ñu seen i gët ñu jox leen li nga xam ne moom ngeen soxla ci wàllu information ci wàllu làmb jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum Sénégal man la wuli wuli waat dama maa ngi wax mbir yëpp nañu abonné ci wasaare lamb parce que wasaare lamb am na solo jël lamb wa wasaare ko ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare lamb man wuli de saa yi ma xëyee gis li am ci wasaare lamb surtout revue de presse bi nag.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 san bëree ñu ko kebe ñaa ñi ko seex jëli kebe ak sëñ Basiru waaye lii neexul ci tur yu mag tur yu mag yi waa lii neexul ci jëli kebe sëñ Basiru waaye ak jëlee kebe sëñ Basiru Diouf waaye lii neexul ci ñaari tur yu mag yi ci Wassare Lamb revue de presse bu neex mereef bu neex ku bëgg a gis yu leer caméra yi nag jógewu Sénégal États-Unis d'Amérique la jógee set wicc leer nañ lii neexut wasaare lam wasaare